So أبا تراب الهلاك rahmatullahi taala wa barakaatu delloo nuyoo bokki taalibe yi fi teew yëpp di leen delloo siyaare di leen woon mbégte mu rëy ci nun ci jataay bii di gën a sant sunu boroom mi ko dogal te boole nekk sëriñ bi di sant sëriñ bi bu baax ñu waral lii lépp nañu sant bu baax te góorgóorlu bu baax gën a góorgóorlu bu baax nga xam naa ne yéen a ngi góorlu mel na ne bu nit mënoon a toog loxoy neen kon nu mën a toog loxoy neen ndax sëriñ bi fàggul nañu lépp ndax moom bi muy ñëw boroom boroom noppi na ci moom xam boroomam gu sëkk am boroomam mu sëkk loolu la fi indaale waaye la ko boroomam defa lépp mu jaayaat ko delloo ko ko jënde ko njaam suñu boroom joxoon ko yonent bi mu def ndigal la ne ci la mu gërëm ba dellusul ko boroomam mu nekk ci diggante boobu suñu boroom daraja yi muy joxe bari na lool ay daraja yu rëy rëy la te xeet yu bari waaye mu tànn sa yaari daraja rek la su soxla soxluwul la nekk dara lu dul di jaamu boroomam soxluwul nekk soxluwul doon dara lu di sorgëb so yont bi li ci ëpp li li suñu borom sàkk ci àdduna lépp ci xeeti teraanga ak la mu def ëllëg lépp ci xeeti teraanga yaar yooyu rek ci tànn mu nekk abdulillahi wa xadimun li rasulihi yaar yooyu rekk la soxla ci diggante boobu yi la nekk bonewu ko dara koo ko xam da xam nga loolu fi ko gisee ba fi ñu ko noppee gis ci boroom rekk la nekk loolu ku xam topp fañ ko gisee ba fiñ ñu ko noppee gis danga am yëqin ci loolu xam ne ci boroom rekk la ma sa nekk kon bu amee tawfeex ju toll na ji du am suñu boom bind nu boole noog moom bu nit mënoon a toog loxoy neen kon dul suñu defasi dara ndax fàggul noonu lépp noppi na ci noonu waaye nag la mu bëgg moom la bëggal ñooñam dafa bëgg suñu borom mi nu te wax ne jaamu rekk a tax mu bind nu andi fi wax na jaamu ko rek la nu fi bàyyee loolu moo tax la ko gënal ci ñun ñu topp ndigal suñ borom jàmm ko suñu kem kàttan ndax ko suñu borom jox na yonent bi itam ba mu fàtte lépp nekk ci lu yéen lu yonent bi gërëm ba mu delloo ko boromam loola it loolu rek la ñu bëggal loolu rek lu ñu yéene bu sañoon ca loolu rek la nekk ginnaaw moom nag bëgguleen doon dara lu dul jaamu boroom bëgguleen doon dara lu dul surgub surgub yent bi ñun bu nu amem xel dara wala ñu am benn seetlu wala yenn ñu am benn xalaat dañ koy jàng jéem koo xam buñ ko mokkalee nooy di xam ne yàlla moom moo nu bind moom moo bu xamee sëriñ bi lam bëgg nu xam ne kon jaamu yàlla rek moo nu war dëgg la bu gisee cee la mu gis yént bi ba tax mu fàtte woon lépp di ko liggéeyal bam mu delloo ko boromam kon lolé tan mun mu am ay xel té am seetlu am ràññi dara du mu dara lul doon ay surga mom ci boppam namu namu na doon jaamu yalla di surga bi yonent bi nonu la la wara bëggé jaamu yalla di su di di di surgaam noonu la demee yitte rekk am solo loolu moo tax bi mu jógee fekk fi lislaam mu xool lislaam ba xam lépp xam jëfe mu jëfe lépp nekk ca waaye dafa mel ne borom daf ko ne dafa am na lu des ñi ngay jàngal leen yar defal ci ñoom yitte baat boo leen loolu mu ko jox mu jaaral ko ñam doon ñamu yoroon digal leen jàngal ab ci yoon lislaam bu mat sëgg mu jàngal ne leen léegi kat ku mënta nekk ci lu nekk yeewu na la demal leneen ngeen wéy nekk ci la ngeen ku ku nekk na ci lam bëgg a nekk te ñoom ci lislaam ju ma sëkk lañ nekkoon kon yitte rek am solo nan sant yàlla bu baax jox noonu yaari yëf mu tawféex ju ndax boole gim nu boole Sëriñ Tuubaa jox nu yitte ji wërsëg itam yéen ñii fi toog ñëpp ak ñi toogul te ñu du leen tudde ay taalibe rawatina ñu dëggu yitte rekk nag yitte rekk nag ci ñoom yéen ñii ñëpp noo bokk jënd yitte ji yitte rekk nekk ci yéen loolu moom luñ nu defal la ñun suñu moom booleeg Sëriñ Tuubaa nee defe ci ñun yitte na mu ko bëgg na mu ko digalewoon Sëriñ Tuubaa mu defe ko ci noonu kon yitté rek am solo tawfeex ci am nañ ko ba nopi waaye yitté nag kumu nek ci yow nga yekko ko kumu nek ci yow nga yekko ko da ngeen yengutu te jëfandikoo yitté ji nan góorgóorlu dooni fas yi bëgg do bëgg bëgg ni julit nan ni julit bu julit nu nun ni talibé doonee taalibe nu xam ne njub kat mooy buntub euh, lislaam mooy buntub ak taalibe nu góorgóorlu bu baax ci njub dëkk ndax bala noo mën a def dara danoo jub jub ku ne xam na ko gone xam na gone xam na gone xam na xam na ko ñun ñëpp kenn ku ne xam na luy njub xam na luy ndëggte waaye ginnaaw xam nañu nan jëfe nan wattandikoo nanu góor góorlu ci njub ci aw yoonu jub di def li nu digal di bàyyi li ñu tere suñu kem kàttan di def lu baax te yàlla tax di daw lu bon te yàlla tax di wax lu baax te yàlla tax di sàmm sàmmante suñu diggante wattandikuy tooñ suñu bopp tooñante wartandikoo añaanante wartandikoo xëccoo wajjante wartandiko bañante xeet yooyu boo ko te topp day bari lool da nga koy mën a lim mu diwe loolu lépp ci njub la bokk njub ku ne xam na ko ay gone sax dañ fi romb ñu xam ne kee ku jub la kee ku dënk la rawatina mag dañuy xam ne kii ku dëng ngi nii ku juba ngi nii loolu xam nañ ko nan góorgóorlu ci njub suñu kem kàttan bu ñu ko defee dana mën a dana mën a dana sàmmonteeg suñu lislaam dana yomb ndax digal la teral la te sëriñ bi bàyyiwul daray boromam bàyyiwul ay ndigalam bàyyiwul ay teram bàyyiwul ak bëggam lépp luy tax am ngërëm yàlla sëriñ bàyyiwul ci dara te loolu moom lañu fi bàyyil mooy sunu ndono loolu yi mu amoon indaale ko téye ko sàmm ko nekk fi ba wujj boroomam loolu mooy son ndono buñ ko xamee ak buñ ko xamut buñ ca nekkee ak buñ ca nekkut nit mun ta toog loxoy neen nit mun ta toog loxoy neen nan góorgóorlu bay yëngutu bay nekk ci lu mat a nekk nan góorgóorlu ci njub góorgóorlu fonk sunu lislaam fonk suñu taalibe rawatina ak taalibe nag nga xam ne mooy tax lépp dara sotti ak taalibe mooy tax dara sotti mooy tax mooy tax jëf sakkan suñu borom dafa wax ne boo defee benn yiw képp man warloon naa fukki yiw laa la koy fayee àgg ak àgg àgg ci alxuraan boo defee benn yiw képp laa la ko fay juróom-ñaari téeméeri yiw foofu mu yema dafa sañ-sañ ba ci alxuraan waaye ci sañ-sañam mën nga ne benn yiw mu defal la ko ay junni jëf yu baax yépp kon dafa mel ne noonu rek la demee ci jëf ndigal yi teel tax bàyyi tere yi teel a tax loolu waxuma la ndax jëfe ndigal gi rek koo def wàcc bàyyi tere gi ko def wàcc waaye dafa am ay njëriñ yu yu nekk ci biir yoo xam ne ku ku ku ku caaw rek am ko rawati rek taalu bi dana koy sëñ bi dana koy tënk léeg-léeg muy di yéene lu baax di wax lu baax te yàlla tax di def lu baax te yàlla tax sax ca dakk te yàlla tax loolu ci taalu bi la bokk ak taalu bi dafa yaatu lool jikko yi gën ci jikko yi ñu ngi ci biiru taalu bi woyof tong te yàlla tax bari teggin lool teggin yu rafet te yàlla tax loolu mun koo boole yeneen yeneen lépp nga tudde ko nga tudde ko wenn tur mu di taalu bi taalibe du baatu wolof du baatu tubaab baatu yaaram la mooy aji sakku aji sakku kii sakku lu sakku wute a xam yàlla rek bu sakku sakku nga am ngërëmal yàlla rek loolu mën mën nañ ko tënk ci ñaari baat ñooñu ak taalibe mooy defar lépp lu baax mooy dolli lépp lu baax mooy sakkanal lépp lu baax mooy yombal lépp lu baax yett yooyu rek la nañ góorgóorlu ci njub góorgóorlu ci fonk suñu su lislaam te yàlla tax góorgóorlu fonk su taalibe te sax ca dàkk bu nu ko defee lépp yomb tey ëllëg dund tey gi de yomb lool bu dee dëgg ci noonu dunduk rawatina dunduk ëllëg yi nga xam ne loolu ko moo ko tax a jóg nan góorgóorlu bu baax niru na lu jafe waaye jafewul niru na lu jafe waaye jafewul ñàkk xam rek fi nekk ñàkk xam rek la waaye waaye yow waaye jafewul ku do xam ne lu xam ne lu njub di jëriñ ak na mu yaatoo ku ne lu xam ne fonk lislaam lu muy jëriñ ak sagal sagal lislaam nga ca nekk ku ne xam ne lu taalibe di jariñ njëriñ rëy yu bari ja nekk nanu góorgóorlu bu baax góorgóorlu teg fas yéene tegu ci yoonu njub ab njub suñu borom tënk na ko boo alxuraan wàccee rek la ko tënkoon ihdina siraatal mustaqim ihdina siraatal mustaqim tegu ci kaw yoonu ci kaw yoon wa mooy yoonu njub lu niw lu jafe la waaye lu yomb la li ngeen tawat yépp du dara ci yàlla yàlla du jeexal dara te te moo nu ëpp yërmande ci suñu bopp yërmande yàlla boo ko boo ko defoon téeméer juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent yépp da ko da ko da ko joxe ba ko da ko benn la benn ko da ko da ko da ko téye fas yéene bëgg ko yërëme jàmm ñi benn yërmande la séddale nit ñëpp yépp ci la koy nit di yarame doomam ci la jur ga di yarame doomam ci lépp benn benn yiw boobu moom la ñu séddale ci la ñu yërëmante waaye juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent yëpp da koo téye ngir fas yéene ko yërëme jàmm jaamam ñi lu yomb la dafa ñu lu jafe rek ndax pakki yi seytaane mi ci gën siiw mooy pakk bu rëy gën cee siiw waaye dafa am ñeneen ñett yu mu àndal ñu noonu doomu aadama yoo xam ne ñett yi moom noo dëkk muy bànneex adduna ji ak bakkan bi ñu dëkk ak nun bakkan ci lu nu neex rek la ñuy xiir fekk na muy su musiba adduna ci neen rek la ñuy xiir ndax du dara ku amoon adduna ngi ci biiram it doo jëriñ dara am at nag li ci biiram di buur wala ngay président wala loo mën a doon du doo jëriñ dara doo tee jàq jàq doo tee jaaxle doo tee fit am fitna doo tee wopp du doo doo jëriñ dara ba ba nga fi ba ci lépp dem sa yoon ni ko ci loolu mooy loo ngi àdduna bànneex nag mooy ko seet lu ko yàlla xiir rek mu ne ca waaw ku topp ku ku ku ku topp bànneexam moom lu ko yàlla xiir rek lu ci yàlla xiir rek mu ne ca ma nga ca dam yeba ma nga ca course ba ma nga ca yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen looloo ko neex ma nga ca ma nga ca làmb ca looloo ko neex te du ko dikkal dara amul ko benn njëriñ seytaan yi nag doola ñëw mi seen kilifa rek doola ñëw kon bu nu góorgóorlu seytaan yi du am ci moom du amati ci aw yoon ndax yéen nañ ko noppal ci noonu ñett ñi ñu dëkkal daañu ko noppal ci noonu ba du du am liggéey xanaa gaa yi yàlla nga xam ne wéy nañ ci jëm wuti seen borom ñooñu wax ko xanaa ñoo koy tax a jóg waaye ñun ñii moom am am nañ ñu am nañ ñoo xam ne noppal nañ ko ci noonu. du dara nan góorgóorlu bu baax rek te yàlla bu fekkente ne gëm gi wér na dëggu gi wér jublu gi wér moo lay gàttalul boppam omatal la boppam mu daal di jeex tàkk waaye nag gëm dëgg day mel ne yombul dëggu may wax dëggal ak dëggu dëggal yàlla santaane li yàlla wax ak mu dëggu ci yow Euh, boo amee dox daal di yomb jëm ca jublu ga kon il faut que gëm gu wér am il faut que am il faut jublu am ku góor góorlu ba yooyu am yàlla moo lay womat moo lay gàttal boppam boppam lépp yomb am naa àdduna ji nag àdduna nga xam ne moo nekk moo nekk ci suñu kanam nu defee ne dara la di ci tiit ak a jàq di bëgg lu am ak lu amul du dara kenn njàmbaar mayewul yaafus xañewul loolu wolof sax xam na ko wax sax dëgg am na ñuy wax laal yoo xam ne dañuy wax dañu daan wax dañ leen ñu wax dëgg njàmbaar mayewul yaafus xañewul adduna li ci waaye am sun borom a ko amee te dana la ko jox moo xam bari na moo xam néew na lu ci waay mel suñu borom la ko jox foo nekk bu fekk la fa ak moom ak nu mën a demee donte ngóor la sax nga juddu amoo dara yoroo dara nekk di sàmm njoro ñaay bu fekkee dafa na ceew ngóor itam da ngay falu ji rek kon nanu góorgóorlu rek nanu am na dëggu suñu ngëm gii ko caaxaane dëggal gi ñu dëgg bu dëggal bu ñu ko caaxaane tawfeex ji ñu am ci Sëriñ Tuubaa bu ñu ko caaxaane cawarte gii mun am bu ñu ko yàq nañ ko jëmee ci lu baax rek loolu rek la loolu rek la waaye nag nan ñaan ci baaxu Sëriñ Tuubaa lépp borom yombalal nu ko may nu kattan gun ko mën a jógee di wéy te dara du ci fekk moom ko ñaan ci baaxu sëriñ Tuubaa am na àdduna nga xam ne moo moo mooy sunu lakkal bu mu leen jaaxal nekk leen ci yéen ñi a taal yéen a ngi taalal seen loxo yàlla kenn ku ne lam ca war a teg dana ko ca teg bu mu leen yàqal seen diggante yàlla bu mu leen yàqal seen diggante ak sax dara waaye bu mu seen dara lu baax ku ne xam na lu baax lu mu jëriñ sa diggante sa moroom jaam sa diggante ak lu ne ku ne xam na lu baax lu mu jëriñ nan góorgóorlu si bu ñu ci góorgóorlu rek lépp lii bëgg lépp lépp lépp fekk fekk ku ci ne mu fekk la fa nga nekk joxal fekk la fa ak moom kon mbir maa ngoog eh, Sëriñ Tuubaa eh, wàcc na sëriñ bi eh, li ma waxoon ne bi mu ñëw dafa indaale xam boromam kooku boromam jaaxalu ko dafa indaale gëm boromam dafa daal ci boromam rek boolewu koog dara ku ne na ñi ko xam xam nañ ne boolewu koog dara lu si rëy mbir nekk ci kanam lu mu rëy rëy rëy rëy rëy lu mu rëy amu ci soxla ma ngi cay boromam rek xam ngeen jaar-jaar yi ku am ku ci xam kër kër ju jëkk ja bi tubaab bi daata am ci yoon ci moom aw yoon bi bi amee ci moom aw yoon ba tubaab defee kem kàttanam ba mu dellusee ba nekk ci boppam ñëw njaareem suñ joon jox ko fa lépp lépp fekk ko fa lépp dara soppiwul ci moom aw doxin digga ma borom dara mos ta soppi ci aw doxin ci moom digga ma borom lépp teew ko nekk sax dakk ci nekk ci boromam rek ba ni loolu nag mooy suñu ndono ni ma leen ko waxee woon mooy suñu ndono de ku am sa ndono sàggane ko nag wala nga sànni ko wala nga maye ko wala nga yàq ko yaa xam mooy suñu de nanu góorgóorlu ci suñu ndono sàmm ko bu baax soo kem kàttan nag bu ñu ko defee suñu kem kàttan rek ñu dimbali nu gàttandu nu jërë ngeen jëf mën nañ fee fanante du jeex ñi ngi sant euh, consul consul bi sëñ Maxtaar Belal Ba sama mbokk noonu ngi sant itam euh, amul ambassadeur dem eh, wax dëgg yàlla ban fi jaaree di dem tane di yàlla garsalu nañu teerunu bi nu wëññi koy andi nañu ba ci kër gi eh, sëñ Maxtaar mii itam eh, fa tabaarakalaaw yitt ji mu war a def yëpp def na ko ci nun ah, te lolu nak kon da ngeen ci am wàll bu rëy da ngeen am cër da ngeen ci am cër bu rëy seen yaari jëf yoyu ndax ndax lolu yeena da ngeen a bokk seen liggéey waaye rafetal nañ ko tubaarkàlla rafetal nañ ko gannaaw bu lolu itam eh, sëñ Mor Sambi dumi mi barandoy yow mom mom moom gi mom ñu ngi sant nañ leen ba nopi dafa am yóbbante bu ma kii rek <laughs> sant nañ gërëm leen ba ba noppi sa sa euh do doo mbirum Fawzeyni daayira Fawzeyni ah dëgg la am na ci lool ginnaaw waxtaan wi ñoo ngi ko yéen du ma ca sañ àgg su may sañ a yem rek moo di ngeen xam ne eh, bo na ngeen ki ku ca bokkoon na gën a góorlu gën a jàppale gën leen a jàppale bu baax ndax liggéeyu Sëñ Tuubaa bu xas jóg la ba noppi. te ñi ñi ko doon def am nga am lañ ci ndam ba noppi waaye liggéey bi yémele wu leen ko woon fenn da ngeen ko bëggoon di liggéey di muy di kon liggéey boobu liggéey Sëriñ tubaa la eh, ku ca nekkoon bu la ko dara mën a yàqal bu la ko kenn mën a yàqal loo mën nanga ca nanga ko ca def ndax kat Seex si Muxtaar am na lu dox seen digganteeg moom foofu rek lay yem parce que tey tey tey tey tey booy suñu kilifa lu ko soob jëfe ko ci nun lu ko soob jëfe ko ci nun te dara di ko ci fekk te it waxuma dara di ko ci fekk sax waaye dañu ci ànd ak dañu caa war a ànd ak bànneex kon Fawzeyni ku ca bokkoon na ngay gën a bu baax a baax ku ku ca bokkul woon itam liggéey bi Sëñ Tuubaa rek loo ca man ci dimbali leen nga nañ ko def daayira yi moom daay daayira maam jaare yi ñoom. waaw moom moom mooy seen surga. waxuma sax di jël seen jëwriñ waaye may seen surga. yéen daayira maam jaare yi. ak fu daayira maam jaara mën a nekk. na xam ne man a seen surga laa. te gis naa seen taxawaay. gis ko yemuma rek ci sama seen sama diggante yéen waaye seen diggante ak Serigne Moustapha ci moom laa jëkk a gis booba laa leen gërëmoon sant leen. booba laa leen seeraloon def ngeen lu rëy. waaw def ngeen lu rëy ndax Serigne Moustapha. Eh, da da daa woote ci ci liggéeyal liggéey ci maam jaara da ko woote rek ngeen gàttandu ko wuyu leen ko yem ci da ngeen ko gàttandu ba ba ba bëgg xaw a dal ci kawam ànd ci ak moom ba léegi ba mu fi ba ba mu wàccee liggéey it ma ba ma taxawee ba léegi ci loolu rek ngeen nekk da ngeen ko yokk waaye wàññiwu leen ko ci kon kon yéen na ngeen ko dégg yéen ñi fi teew ñi fi teewul yëpp yi nañ ko nañ leen ko déggal ñëpp xa ñëpp xam ne noo ngi noo nga fa fas ko ànd ak ñoom di leen ñaanal itam suñu borom sàmm leen aar leen sàmmal leen seen jamono te may leen wér ak kattan ak yàgg lool ci liggéey maam jaare maam ji boppam noo ngi ñaan mu gàttandu leen boppam ànd ko yéen waaw na ñëpp jot li wax sëñ sëñ moo tàmbi di jooju daaye na ngeen nañu gën a góorgóorlu gën a ànd ndax lu ñu gën a góorgóorlu gën a ànd rek mu ëpp mu ëppal leen njariñ da leen ëppal njariñ ci zaahir da leen ëppal njariñ ci baatin waaw da leen amal njariñ ci saahir dina am amal njëriñ ci baatin kon nit nañ ci ñëpp góorgóorlu day daay day yëpp gën a def fédération gën a góor góorgóorlu bu baax a baax a baax fas yéene sax ci liggéey Sëñ Tuubaa loolu eh, day day dolli rek dana leen dolli ci wàll yëpp waaw loolu rek moom moom moom moom moom moom laa xam ne moom mënu ko ci ñàkk a dolli waaw di di di sant ñëpp di gërëm ñëpp. waaw li waaw waaye xam nañ taxawaay bu baax a baax a baax daay daay daay bu fu mën nekk rek xam nañ taxawaay bu baax a baax a baax a baax euh, ñi ñi ngi koy fas yéene ànd ak yéen rek fas yéene fedd suñuy laxasaay ànd kook yéen fas yéene sax ci liggéey seen tubaab dama bëgg rek xam ne dama bëgg rek ngeen xam ne sama xol sedd na guy baax a baax a baax a baax a ngi fas yéene gën a fedd sama samay sama samay sama laxasaay ànd kook yéen ba faw jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. dama ne tàllal leen ñun ñu dëkk ak sëñ bi bët bi sër mu ñaaral ñu sax guddeeg bëccëg doyaluñ ci moom kon nag kenn lu doyal ci moom da ngay doyal sa xol rek te xam ne mi ngi ànd ak yéen. سلام يا مختار لله خدمتي عليك سلام من به فيك أبنخ خرجت من المتروك بالله وحده وبيع له بيع به ليس يفصح خروجي بربي معك من قبل حدث خير خير لا نحن نوبخ خروجي بربي معك من قبل حدث وينع لخير لا لنحن نوبخ لربي خروجي مع دخولي بمنزلي مها قبله ما خد مضى من تسلسل له شكر أيضا بعد حمد مخلد على المصطفى خير البرايا المفضل لربي تعالى صرت عبدا مخادما لربي تعالى صرت عبدا مخاتبا لمن فضله بعد النباث تعقل لقد جاءكم قد جاءنا مادحا لكم من الله ذي العرش العظيم المفضل لقد جاءني في الخ... لقد جاء في القرآن ما دلنا على تخدمك المعتل حتى إن لقد جاء في القرآن ما دلنا على تخدمك المعتل حتى إن مكمل لأنت الذي أعطيت خنا نبوة وآدم بين الماء في الدين ينجلي لأنت الذي أعطيت خنا نبوة وآدم بين الماء في الطين ينجلي لأنت الذي أعطيت خلا نبوة وآدم بين الماء والطين ينجلي لكل من الأخيار فضل وربة وما كم عبد الله حبد لدى العلي لكل من السادات جاه وحرمة ولكن جاه المصطفى البر يعتني لئن جاء بالآيات رسل تخدموا